jërë ngeen jëf ñaari gaynde yi ñu war a géewal tey ci tàkkusaan ca Côte d'Ivoire di Lion de la Teranga ak Lion indomptable yéen kay yu bari xëy nañu ci taxaw ñu taxaw ci xët mu njëkk Soleil national mi bind ne Coupe d'Afrique 2023 Sénégal Cameroun tey la cinq heures ci ngoon mu dolli ci ne suñu gaynde yi pare nañu ngir wane seen bopp maxub tay bi ci diggante Sénégal ak Cameroun Sud Quotidien soog des Lions la ko tudde la Sénégal tudde ko duel de Lion Le Quotidien nañu ay gaynde a daje Vox Populi gis ci maxub tay bi max ngi ñuy xamal ne Cameroun heure boo dajeek Sénégal ci Coupe d defal ko bagage Sadio Mané ak i gaayam nag journal bi nee nañu wàcc nañu ba jekk ngir loolee dakk sursoi ne ko moo taxit waxtu fayu jot na lise ko nañ ak luñ ci mën di dégg daal du yomb fi xeex bi nar a gën tare ci terrain bi nag yéenekaay bi nee nañu mooy ci milieu terrain ba milieu de terrain bu Sénégal bi di Idrissa Gana Gueye nee bu dee guerre rekk la ñu bëgg dinañu fi fekk bu ñu ñëwee danañu ko doy li sëkk George Kevin Nkoudou bokk ci footballkatu Cameroun yi di wax ci yéenekaay bi ne Cameroun du équipe bu ñuy suul ñun duñu ñeexu ñebeem kenn stade yéenekaay nañu wax wax ci leen rek la muy daje ak Cameroun gagné ko assuré qualification bi tey ji ngoon record yéen a kay ne ko loolee rek mu di qualification ci huitième de finale yi mooy lu ñu soxla mënuñoo dégg leneen du yomb nag ndax Rigobert Song entraîneur bu Cameroun mi ngi wax ci xët mu njëkku record yéen ne max bi final lañu ko jàppee amatuñu lenn lu ñuy calculer gagné Sénégal jël trois points yi loolee rek la ñu gis ñu gis ci xët mu njëkku journal bés bi le jour ñaari entraîneurs yi muy Aliou Cissé ak Rigobert Song journal bi teg ci bind Songo daan ñu daanu ji ci l'observateur moom it mi ngi bu baax a baax ci maxub tey bi Sénégal wala football ak Cameroun mi ngi ñuy wax ne match la bopp ñoo ngi ciy xaar gisaat Sadio Mané mi ñu xamoon bu Sénégal bi di Edouard Mendy ak góolub Cameroun bi di André Onana ñoom ñaari góol yi yéenekaay bi nee nañu ñoom it ñi ngi leen xaar ci match bi keneen ku ñu bari di xaar ci match bi di Lamine Camara l'observateur mi ngi ñuy wax ne moom ñaar ngi koy xaar benn mooy mu confirmer li mu wane keroog ba ñuy football ak Gambie ñaareel ba mu bàyyi xel ci match bi ne jël na carton jaune ba ñuy football ak waa Gambie mi ngi ñuy fàttalit moom l'observateur bëgg conférence de presse na démb doon leeral ak tontu Amadou Ba mi ko recours sursaa nañu tontu ko rek yam ci yàq na ko lu wex xàtt lu mel ne xeme lool weñ wu ci dal day journal L'Info ko dëggal ci xëtamu njëkk ak li mu tuddee tontu lu wex xàtt lu jugee ci Cheikh Tidiane Dièye jëm ci Amadou Ba ci libération mu fay leeral moom Cheikh Tidiane Dièye ne musuta ci benn parti politique te du nit koo xam ne nguur da ko tiital mu ne bu candidature Ousmane Sonko a candidat yi war bokk ci présidentielle yi waaye candidat yu ci mel ne Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Ousmane Sonko ak Karim seen dara leeragul seeni mbir lëj na lëj goo xam ne ci sursis ca la nekk reporté gi ñuy ruumandaat ci ci opposition bi bokkuñu yi ñuy rëkkale yi xalaat la bopp waree su ko sax jëmee kaw Moundiaye Cissé coordonnateur bu ONG 3D ne ñu ci journal point actu bu ñu fowee ak di caaxaane suñu démocratie bi waxi reporté élection élection yi Moundiaye Cissé ay caaxaan la farce politique la ab dil bu ñu bëgg a teg ci kaw démocratie réew mi te duñu ko nangu ñi ñu recalé lettre bi ñu bind président Macky di sàkku ci moom wax ak waa conseil constitutionnel ñi ko def Moundiaye Cissé nee na ñoom it il faut que dañuy xam li ñu bëgg ne mënuñu fee taxaw di tuumaal Macky ne dafay instrumentalise justice bi ba noppi bëgg a taxaw di sàkku ci moom mu wax ci décision bu waa conseil constitutionnel jël jëm ci parrainage Colline doomu France bu jigéen bi ñu fi jàppoon libération nañu libéré nañu ko génne nañu ko ci kaso bi ba génnee ko réew mi démb ko mboko mboko dajalee koy bësam yóbbu ko aéroport yàpp ko ci avion delloo ko ca France ga mu dëkk expulsion fast track la ko def ki ñu war a laaj nu ko yoon di def mu ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi benn waay la bu ñu naan taala taala ab gelam da koo mere mu bëgg koo neexal di seet lu ko neex tax mu jël auto service bi ñu ko joxoon jox ko gel bi ngir mu def ci balaat maanaam jël oto bi di taxawaalu ci mbedd dëkk bi ndeke xale bu jigéen bi amul permis te dawalu mokkul tax mu tege ci kaw tali bi rajaxe mbëkk ñaari wotey jàmbur ba yàq leen fàttali